salaamaaleykum mbokki internet yu Feeling Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen dalalaat seen émission seeti ndaanaan tey nag ndaanaan bi ñu seet si kenn dootu ko présenté ci réew mi ku wax la princesse wax yaayu Benjamin waaye wax mag magi mbay si Ndiaye macha allah faramareen bi tey du ñu def déplacement ñëw këram seet ko nar a waxtaan ak moom ah, animatrice bu mag bi borom Italia borom Sénégal sama waaj noo def taalibe Serigne Fall bi. li fi wax ndax comme yow moom bu gaa yi demee nii rek nga ñoqati ma wëri ma ah yëpp da may dóor ni am problème naa ko gérer. xam nga xam nga nag xam nga xam nga ma ne ko ndeysaan bu boo nekkee ci famille ñëpp respecté la ci famille bi ñëpp naw la ci famille bi bu dara xewee ñu suñu xel ci yow la ñuy njëkk a dem ah euh, princesse bu ma la nuyoo ba pare ni ñuy duggee ci waxtaan bi xam naa ne luy ay di njàmbat fi mu nekk nii. Euh, li may njëkk a wax ak yow tey mooy li nga xamante ne bi senegal yëpp a koy coow ma Ndiaye mi toog ci télé bi barki démb wax ci Wally Seck ma <laughs> <laughs> nuyu sama mbokk yi. kii suñu émission ma ne moom sérieux la. si si mais c'est bon mu continuer c'est bon <laughs> damay ah. sama xarit yi. ak ñi nga xam ne dañ ma bëgg parce que émission boo def ak man damay xool commentaire yi. nit ñi macha allah kenn. non kenn du ko def ko recommencé mi ngi kóol nii. waaw parce que dafa am ñoo xam ne dañ may damay damay damay lire commentaire yi. gis macha allah nit yi ni ñu ma bëggee ak euh, commentaire yi ñuy def ci man di ma encouragé ñi di ma ñaanal. ñii di ma bëgg macha allah ñooñu faaw ma nuyu leen di jee. sëñ Bamba waaw léegi soo pare <laughs> numéro bi nag bu ko léegi nag soo bu ñu paree nag ma la nga dem ba pare fi nga dugg noonu fan la. ah man de ah, fi ma dugg nii yaakaar naa ne foofu la ñuy njëkk a ah, dugg ci waxtaan bi tey mooy li nga xamante ni bi vraiment démb ak tey bërki démb bi ma njaay toogee wax ci Wally Ballago Seck alors princesse mais yéen pourquoi seen famille faramaren bi maintenant léegi attaques yi bari ci seen eh, famille bi. bi mooy deuxième fois. parce que Kéba Seck bi mu njëkkee toog attaqué na Bambali attaqué Mandiaye attaqué Wali donc ki nga xamante ne bi moo tëbaat attaqué moom mooy Mandiaye Seck te wax dëgg yàlla yow princesse kon lépp ci biir ak mbokk la macha allah mais bu fekkee ne dafa am ay attaques superposées alors li ma bëggoon xam rek mooy famille bi yéen naka ngeen di dundee yooyu lay attaque non bu njëkk bi moom du attaque Kéba Seck attaqué wul da doon sañ-sañ lu papa la Wally Seck bu nekkoon tey jii président de la république du Sénégal Kéba Seck papaam la te ñoom xam nañ man ni ma mel si Wally xam nga li ma la kon bu ma nee rek loolu lu négatif la rek jàppal loolu waaw Kéba nit su dëgg la nit ku baax la yaa ngi dégg nit koo xam ne la mayul nit muy wax ci ay mbokkam point mais bàyyi la buy tiitaru di di sañ-sañ lu ci ay doomam nii nag amuñu kilifa mais saagawu leen xasu leen amuñu kilifa la wax loolu tooñ la rek. mais sañ sañ ko taawi rek. sañ sañ ba mujjee na jur fitna. waaw mais xam nga Waly comme waxoon naa ko Cheikh Sarr dinaa la ko waxaat nee naa Cheikh Sarr Waly dama ni ko Kéba bàyyi la buy sañ-sañ lu ci doomam ay doomam parce que Kéba moo ko Ousmane Seck bokk ndeeg bàyyi jur ma Ndiaye. moom Mapenda Seck bokk ndey ak baay Mapenda jur bàmbaalin soo fekkoon tey ji Keba ak Mapenda Seck sa yaram day daw complicité bi ñu am Keba lu ne lay wax Mapenda Mapenda day réy ba rongo di sotteeku sama ni yaay yi dañoo baax de ba pare nag damay waxal yàlla rek te yàlla tax noon na leen bàyyi ñooñu ay kilifa lañ te ku ñu doonoon sa nijaay mbaa ñu doon sa papa nga jël defuñu fi lu bon waxuñu fi lu bon seen palmarès ñaawul macha allah. kon yow bu njëkk bi da ko da ko. famille bi famille bi kenn merewu leen. tonton na nit gënu ko ci àdduna. mag la mais nit gënu koo yaru ci àdduna. alalam boolewu ko ak kenn xale bu ndaw mën na ko yendal fii. mooy Mapenda Seck nit gënu ko ci àdduna. man yàlla dong laay waxal sama kër gii ma nekk kenn fayalu ma ko damay wax te yàlla tax. nit gënul ma penn sekk ci kaw suuf Ousmane Seck dama ko jëlale jàpp la tal julli la tal foo ko fekk mi ngi ci sijaadaam bu fa jógee mu nga tëdd ja sooy wax nag danaan ah ah booy tudd nit danaan ah, jënd leen mburu li ngeen di def nii moo lekk ni tayam parce que ñoom seen papa muy sam maam Cheikh sekk moo leen yar ci correct moo leen éduqué ci julli moo leen yar ci maandu wax dëgg yàlla amuñu problème boobu ñëw mm-hmm. Kéba nag da sañ-sañ lu ci ay njabootam ñu taawi ko yaatal ko mais nit ku baax la Kéba Seck. c'est-à-dire euh, loolu Kéba defoon malgré que attaques yi bëri woon na mais yow ñaawlu woo ko euh, lu normal. ñaawloo ma ko danoon danoon danoon kii wanteeg ñoom seen maanaam bàyyi buy takki ne la mm-hmm. nee naa la ñoom ñooñu mm-hmm. seen papa yooyu muy Assane Ndiaye. muy muy Kéba Seck muy Ousmane Seck ba ci ñëpp ak ñi ñu xamul sax wax dëgg yàlla amuñu problème. mais ce que fekkee ñu toog complicité bu garaaw doo xàmmee ku mag ku magul Kéba ñëpp la leen di saaga ñoom ñëpp te ñoom dañuy ree da leen di neex maanaam complicité la ñoom seen biir réeroo amul foofu bu Kéba bi moom moom moom aw ci nickel. bàyyi la waa si si bàyyi la bu doon sañ-sañ ci do ay doomam. est-ce que jurul problème après parce que ñi doon attaqué dafa bëri attaques yi bëri vraiment te gisuñu aussi fenn fu mu dajewaateeg waal yi wala waal yi gënaat ñoom ñaar dafa mel ni sax dafa gën a. daje du ngeen ko yëg bu ñuy dajee du ngeen ko yëg si. ñu mais famille ñu po dañoo bëggante déggoo li ma la wax dañoo bëggante mais Kéba Seck position bi waali taxaw fala Kéba taxaw waa Kéba day fay appartement. Keba day jënd ay xar Keba day ngénte ay doom Keba day jënd ay ordonnance bërki dem moo njaay la ay raqam tuxu mu tabax kër étage bu mag deuxième étage te dëkku fa karala ko marbre kaw ak suuf ba pare meuble leen ñoom ñëpp ku ne mu meuble la yóbbu leen ñu dem wutal leen camion mu jëlee leen seen quelques bagage yi ci des moom moo ko jënd moo ko yóbbu ak ak ak ay oto te moom dafa luyee kon Kéba sekk wax dëgg li mu def moo loolu noonu moo na ci xolu Mapenda sekk moo na ci xolu Ousmane Seck moo na ci xolu Assane Ndiaye ak ñeneen ñi ñu xamul maanaam xol moom ak defal yéene yàlla dogal na ko ci ñoom ba ci coon sekk mi dem yàlla na ko yàlla yaram te yeexee amoon na mébét yu bari mais yàlla mooy dogal yàlla ci Kéba la ko dogal mais terewu ñeneen ñi xañ na mënugun ko mais yéene baa fi ñeneen ñi mën nañ ko yéene jaa fi yàlla nañu yàlla may dund rek. lii nga xamante ne bi bu Kéba moom ok nickel parce que li nga ci wax ni Mbaye si Ndiaye moom la ci wax ne réeroowuñu donc c'est la même famille te ku ne xam ne ni yow ak Mbaye si yéen a bokk ndey ak baay mais kii defaat sorti mooy <laughs> ma Ndiaye Seck ah, euh, wax ni Wally suma grand nga mais tegoo ko ci yoon moom moo ko tegoo ci yoon man ma Ndiaye dama ko bëgg te digganteem ak Wally dama cee dox ma tubaab olof dani maa fekkee la polis bëgg ma bi mu bàyyee suba teel moom moo ñëw wax ak man détail yu bari détail yooyu duma ci jaaraat man maa dem ba ci waale ñu ko wool ma ndax lii ak lii ak lii la dund te yaa tax lii am lii am loolu nekk lu touché waale waale xëcc raqam Waly jox na manjaay oto mm-hmm. Mandiaye jaay oto ba nit ñi ñëw ni ko Waly Mandiaye jaay oto mu ne seen yoon néew ci ni nga koy gis nii kenn du laal mbokkam moom moom na dóoral boppam na màttal boppam na gajal boppam mais keneen du laal mayul fi mu ne nii may waxe yow mayu ci kenn Moussa ni ci gënee de salam tolloon na fi guddi yoo xam ne diggu almadi lañ ko jox boîte de nuit muy boîte bi si di doon tëggee ma njaay di fa tëggee buy dem waale mooy jël matériel am joxe fa jël ay garde corps am joxe fa jël ay nitam yabal fa ba pare imposé ko bul def entre cinq mille defal entrée dix mille VIP quinze mille kooku ku la iñaane du ko def yàlla dong laay waxal mm-hmm. te li may wax mm-hmm. ma njaay dina ko seetaan mm-hmm. te Mandiaye xam na ni man sama xarit la te moom moo ko tegul ci yoon man manjaay laa mere ndax man su waxtaanoon ak man moom dafa am lu mu jiital ndax dani la leen saal sa laaf en famille moom moo ni yëre tilim nañ ko fóote ci biir kër gi du loolu la ni Kéba waru woon toog wax moom moo gën a péjoo Kéba man dama mere Mandiaye man parce que li mu wax waru koo wax mag ju la bëgg yëkkati ñaari yoon oto may la ñaari yoon la ko may oto ma am ak sa kër waale heure bu ko neexee lay dugg heure bu ko neexee lay génn ma njaay di sëkk ak yaayu ma ay teraanga est-ce que yaa ngi may dégg mm-hmm. soiréem waale ma njaay dafa am accès ci seenu waale heure bu ko neexee lay yéeg heure bu ko neexee lay wàcc mm-hmm. gis nga son bi ñu fi àndoon mu cartonné ñoom ñaar mm-hmm. waali ànd ak manjaay morso clip ba fere lépp waalee ko def léegi lan la manjaay bëgg mais la mooy problème bi ba mu euh, jékki-jékki dem toog ci télé bi attaqué ko dañ koo xabtal mal mu sangoo garab jàmbur parce que manjaay yar bi ma xam ci moom man manjaay xam nga du siggi xool nit nit ku bari kerse la man dama koo bëgg na bu ma ko de parce que sama xarit la loolu dafay am mais dama ko mere mere naa ko moom moom nee na dafa mere waale man maa ko mere parce que moom. waale teg na ko foo xam ne mel na ci moom noo xam ne mere di mu ne daf ko mere su fexewoon ba gis ko ne ko grand dama laa mere. waale dina ko dégloo. warul dem fee toog naan waale dama ko mere lan la ko waal def nee dem na kër waale ñu ne ko waale day nelaw man mën naa dem kër waale ñun ma waale day nelaw toog mënut a nelaw. foo ko fekk mi ngi lijjanti mi ngi ci projet yi mi ngi ci contrat yi mi ngi ci nangam mi ngi ci nangam mi ngi ci nangam bu demee ba dal ba mënatu ko ba tëdd di dinaaw mais dañ koy bàyyi mu ne la pourquoi ñu koy kenn du man mii sama kër gi man duma kenn duma dara de su ma tëddee fii di nelaw boo ñëwee sama jànk bi xam nga lu ma la wax princesse de nelaw doo dugg fii nga toog saal ba ma yow. waaw ah parce que coow li nee li koy indi mooy Mandiaye dafa amoon habitude di dem kër Waly di fa korité wala tabaski bisu it yan mu dem mënul dugg. mu xam dugg. waa dëgg yow foo daan dugg tey boo demee duggoo rek bul bul bul def lépp ci mbalit mi nag nañ ko rafetal rek nañ ko rafetal waale li mu mën si Majaay def na ko te ñun man de man dama ne la am na lu ma dox ci diggante Majaay ak waale man mu ñàkk solo mii mm-hmm. moo tax ma mere Majaay parce que aussi lii dafay firndeel wala boog dafay may doole détracteur waali yi wax naan waali Samba Allaar la day defal jàmbur yi bàyyi ay mbokkam du Samba Allaar nag man sama kër gi waale fay ko li gën ci man waale joxuma ko waaye nag du Samba Allaar lu mu def ci mbedd mi ci kër gi la ko njëkkee lu mu def ci mbedd mi rek ci kër gi la ko njëkke du Samba Allaar non non waale bi muy commencé musique yaaga jàppalewu ko doon sekk jàppale wu ko ndax xanaa koo jàppal sa da koy gëm. ñoom gëmuñu waali di. coon gëmul woon waali Alioune Seck danaan ma yow yaa njëkk a gëm waali maa ko njëkk wax loolu nu ko dinga dem ba téye musique bi ci kàttanu yàlla te teguma ko woon fenn lu dul ci mbokk ak ci yëg-yëg tey jii kan moo téye musique bi balaa kenn way àbb ko micro barke yonent bi wala doo way sama sang bii kenn du ne fi Samba Alar la. te nag ku fi war ku ko fi wax loo ko war a wax duñ ko lijjanti mais ku ko fi war wax loo ko war tax dinañ génn xam nga lu tax ñuy génn buñ ko amoon ñaar famille bi neex wala ñu am ko fi ñett am nañ ko fi ñaar sax ndax Kéba ngi fi di def lu baax. Mm-hmm. Mapenda Seck ngi fi di def lu baax Ousmane Seck ngi fi di def lu baax Assane Ndiaye noonu ñeneen ñi ci suuf ñu ñu xamul noonu mais comme doom laa wax ci doom moomi Seck ngi fi di def lu baax chéri Bougane Gueye mm-hmm. di def ci man lu ne kii maam góor borom périg yéeg yu baax yéeg yeneen yéeg ay télévision lu ne la ma moom mi sekk di jox lijjantiwul lu ma am xoolu xoolu ko li ko war ci sama diggante moom rek lay doxal kenn gënalu ak jëmm jooju ndax ni ma def ak fi ma teg te mu yàgg lool mais nag nañ bàyyi waali gor xool ba nëb na waali xool ba nëb na parce que nag tubéy bu lekkee taat taat jeex mën naa supporter jàmbur di ko di ko takkine mais nag mënuma supporter sarak dama koy tooñ léeg-léeg ni ko bu li ma la wax nii boo ko deful naa la tàggee génn bi jël sa photo bind ci rip te yow bu ma la tàggee rek Sénégal jooy la dëgg wala déet du ma nangu ku ko yàq barke Seydina Muhammad ndax li ko war mi ngi ci guddi li ko war mi ngi ci bëccëg waale ngi ci xarit tabaski yi xaalisu bàjjen xaalisu xari bàjjen yi tabaski sama loxo yaay la koy teg ah, pour bàjjenam yi seen xar sama loxo yaay la koy teg ñëpp lay jox xar yàggul yàggul matul dara envelop la def def ci millions yu bari bàjjan bi ñii laal un million ñii laal waaye nañ bàyyi waali waay li kii naan sa mbax ci bàmba ji ku ci nekkul sa yaay na ci mbaa sa baay na ci mbaa sa maam na ci waaye xaalisu ku ko lekkul sa baay lekk ci mbaa sa yaay mbaa sa tànt mbaa sa bàjjen amul ku mën a toog ci famille bi waat ni musuma lekk xaalisu waale Seck par man musuma lekk xaalisu waale noonu kenn du ko ci waat mais gore na gore goo xam ne doo ko dégg mu réagir doo ko dégg mu wax doo ko dégg ci benn détail au contraire sax des fois day jooy des fois affaire yi da koy choqué ba rongoo ñoom day génn parce que nag gor la te gor kenn du ko sës ci miruus bi manjaay fi ko waali teg ak ni ko waali bëggee moom xam na ko moom waali buy concert sax bu ñëwee yéeg fa playback wàcc seen cachet fekk leen seen kër playback laa lax de pour nga yow nga yéeg seen waal du bës mais bu ñu yéegee seen waal sax bu ñu wàccee seen kase fekk leen seen kër mbaa ku ci yéeg am bala ngaa wàcc mu duy say poos ba mu fees waa luñ bëgg lañ bëgg ñun nag du ñu seetaan nag nit ñi di dem ci nopp Wally Seck ni sa say mbokk bëgguñu la si dañ laa bëgg mariasin man dama laa bëgg ba awma ci yow sago kenn du fi seetaan ñu naan la say mbokk bëgguñu la bëgg nañ la ba mu neex mais nag Mandiaye koroog dafa sangoo garabu jàmbur mais Mandiaye ku yaru la. yaa problème yaru wala boog dañ ñu ko attaqué waali nga am bës comme gëj na génn wala lan la lu xew Mandiaye yaa quoi non yaa quoi lan moo xew man Mandiaye dama ko estimé mu nekk nit ku yaru du siggi xool nit. parce que Serigne Touba bu toogoon fii du la xool ci bët mhm. mais dafa juum. dangaa juum Maria Yacine loola jaral lii fi réew mi toll nga yàq sa mag ji pour lan alalu àdduna jaru ko soo wéetoo nag moom ni ko waali lii moo ma naqari man yow yow rek waxuma la man de yow xam nga ni boo wéetoo nag waali ni ko waali lii moo ma naqari loolu doodoo ko gis waali mooy docteur ci biir famille ñii mu pikiir ñii mu joxi doom ñii mu enterré <laughs> lu ñu nangu kenn di ko tilimal ñoo bañ man man rek maa bañ daba li ngay wax nii sa yaram da ciy daw mais xam naa ne sa yaay da ciy sax jooy euh, ñoom mag ñi nan la ñuy dundee yi da leen di naqari sama yaay léegi fa laa jógee da doon jooy sànq parce que daf nii euh, mujj gi mu ne man kon man yéen laay ñaan yéen laay ñaan bu ma dégg kenn wax lu ñaaw ci sama famille bu ma dégg kenn wax lu ñaaw ci Wally Seck bu ma dégg kenn wax lu ñaaw sama rakk mbaa sama doom mbaa sama moom moom day defar rek moom day defar rek wax dëgg yàlla mais tamit dañ waxante dëgg di jee ñu waxante dëgg li fi nekk waale ngi ci oto yi waale ngi ci fayum luyaas yi waale ngi ci ngénti doom yi mu jurul yi waale ngi ci fay appartement yi waale ngi ci ordonnance yi mu ci cas social yi damay takk jabar ñaataa lay doy temps mu wàññi jox la oto sàngam laa bëgg nga toog tuuti bu ko mënee ci waali day dem ba day làqatu sax ndax waali mënul noo gis nga xam nga waali du wax nit déedéet su amee da jox su amul ku mu dendal dina jël ci yow jox la wala boog mu jaral na ko sax mu daw làqatu ka ba ka mu ni la amul waali du wax noo du wax non nit gënu ko ci kaw suuf man maa la wax lii ku mu langal joxe nga départ bàyyi ko fa ni leen mën a ci way noonu la leen mën a ci ci ci ci poosam boobu. mais lii lu metti la ci moom parce que bu ñu demee ba. day metti parce que blessure la loolu sar sa say mbokk non metti na ma de barke Serigne Touba say mbokk ñooy toog di la wax ay wax ba pare en plus nga toog ci ay jàmbur ITV gee mu toog di ko wax loolu dafa ñaaw c'est vilain loolu ñaaw na moom bu demoon ci waali ni ko lii moom a metti waali faj ko bu ñëwoon ci man wala mu dem ci keneen dem ci mbay si wala mu dem ci Benjamin ñu faj ko te moom xam na fi ko waali teg mais nag doo nekk nit ki tamit léegi def lu baax boo demee ba waali defam lu baax gi daa mujj di ko gaañ bu yàggee sax waali dootul defatu lu baax te nag li muy def du force ndax kenn joxu ko li muy def kenn joxu ko ko moo commencé de zéro moo ñafeel boppam ba egsi fii ndeyam gëmu ko baayam gëmu ko mu ànd ak jomam ànd ak ngorom ànd ak ngëm-ngëm moo ma ko daan wax dinaa dem ba tey ooy sama loxo xuus rek gëmm ñu jiñ ko lu ne tur bu ñaaw bu ne ñu woowee ko ko baaluñu ko dara sénégalais yi muy xuus rek di foncé ñu yàq daram bi muy xuus rek di foncé ñu woowee ko tur bu ne muy xuus rek di foncé ba egg si fii mu egg si tey nga bokk ak moom waroon ku ko tudd nga tëb nga toog ni man kontaanuma ci moom naan doom baay bu lekk reer bi ba ma te nga reer ci reer bi ba tey. waaw parce que moom nee na dafa metti woon ci moom ah vraiment ba mu dem sax mbuur dëkk fa. waaw ah, loolu bu méttee ci moom gëj nañ ko dégg c'est normal Omar per kii moo ne Ismaïla Lo nee na kuy woddoo làmmiñ boo noppee rafle dina metti ci moom parce que xañ na daan na yëngu. dina yëngu te manjaay daanaka sasul fenn comprendre nga kon su toogee deful dara rek faaw mu metti ci moom mais nag Mar Yacine nga ñëwaat rek woo sa mag waxtaan ak moom yow xam nga waali woo woowaatal sa mag rek waxtaan ak wala nga defaat ni nga defoon nga ñëw fii ñu waxtaan ma ak yow problème mais nag waroo toog ci télé bi di yàq waali de li nga def metti na ma de ñaanu trop ñaawlu naa ko de. mais est-ce que lii tamit jotul euh, kilifa yi jóg ci comme ku mel ni sa yaay ku mel ni Mapenda ku mel ni Ousmane genre réunion de famille am boo xamante ne bi dañu ne mbokk gi kat euh, jar maytuñu kenn di toog ci média vraiment di yàq kenn parce que léegi boo dee xool wax dëgg yàlla euh, yëf yaa ngi bëgg a bëri donc attaque yaa ngi bëgg di répété te à chaque fois dafay jëm rek ci benn jëmm lu doy waar la. taxul ñu yàq jëmm ji de jëmm ji de tey la gën a baax tey li fi gën a gën. waali tey la fi gën a gën tey la fi gën a baax attaques yi benn benn yàq ko ci mi ngi mel ni rek nga fekk eh, guy bu taxaw nga jël ay daal di ko dóor yëngaloo ko attaques yaa ngi bari mais benn safu ko ci. jaxase am na de est-ce que du ñi nekk ci biti. ñu bokkul ci mbokk gi ñooy jaxase mbokk. waa parce que nag ma yow nañu waxante dëgg di je su ma la fekkee fee ne sa patron bii lii sa patron bii laa nga te feree na woo ma nga toog di ma dégloo mais bu ngeen amee problème yow la du man sax nit da ngay am la ci sa bopp da ngay fut la ci sa bopp ñu ñu gën fuuf mhm. ñoo fi nekk ba pare ni patt il faut ñu noppi mhm. bu ñu amee lu ñu war a wax ñu waxtaanee ko suñu biir mais nag du ñu seetaan di tax man nga nga ñëw demandé ma lii ma nangul la ko mooy dañ dul noppi dañ dul noppi nit ñi di yàquwaali sekk ñu ne bu ëllëgee ñu ne ay mbokkam ñun merewuñ ko de dañoo kontaan ci moom ndax kenn ku ci nekk dimbali na la kenn ku ci nekk jàppale na la kenn ku nekk li kii naan fatal ma foofu mm-hmm. kenn ku ne fatal na la ay foofu yu bari kenn ku ci nekk tenir na la kenn ku ci nekk ku ci amul oto booy dawal rek waalo jàppee na la neneen boor te du force muy jox ay oto di fay ay kër waa léegi tamit def lu baax tamit nga dem ba mujj gi nag ah mun mujjee nekk force entre lan moo war a nekk problème bi lan moo war a metti Mandiaye xaj na peut-être yow xam nga lu metti Mandiaye ba Mandiaye war a toog ci télé bi ne grand frère tegoo ko ci yoon jàppale say rak lu ko mën a metti man xawma ko parce que dugguma ci xolam te man Mandiaye daf ma bett torop sax man ku ma ni woon man wax bu ñaaw dina jóge feneen man dama naan sëy mais ci gémmiñu Mandiaye Seck envers Wally loolu moom mënoon naa cee xeex duma ko gëm parce que Serigne sans farce nag dama choqué wu te choc bi ma ci am moom la ci papaam am Ousmane Seck tàggu ko bu ko tàgg woon du wax lii mu wax Ousmane du wax kenn du ñaaw Ousmane dugg ci benn détail jàpp ñàmburam ku isolé la su amee ay soiréem dem tëgg ko bu ko amul kenn gisu ko muy taxawaalu kenn ñàkkul fayda ñaanul kenn dara foo ko fekk mi ngi jàpp di julli la baayam ko jot bu ko tàgg woon du wax li mu wax te lii mu wax kenn sant ko ko te famille bi kenn àndu ceeg moom dina ci wéet nag hmm. maa la ko wax de ndax ñun ñëpp man de man mii sama xarit la mais ànduma ak moom ci lii mu def. da nga gis ne famille bi <laughs> rek moo ciy def loolu dina ci wéet quoi. di mu ciy wéet ku ko ciy fekk si ku ñuy xas ma seen daaw mbaay mii lañuy xas koo xamante ni nii tabaarkàl la xam nga kenn jàppewu fi nit alal hmm. ndax moom jàpp naa ko ci alal taxul jàpp naa keneen ak keneen te alal taxul. man yàlla moo def sama famille macha allah ñoom ñëpp samay xarit lañ yaa ngi may dégg mais aussi tamit dama dul nangu waali defuñu dara nag waali defuñu dara waali defuñu dara pourquoi ñu koy xas àndu ma ci bii da ciy wet bu àndu ma ceeg moom gungewu ma ko jàppale ma ko ci du ma toog fu ñuy xasee waali man ndax defuñu dara li mën mi ngi koy def xale la nekkul ni li muy def par force la moo am habitude bi rek juddoo noonu nàmp ci weenu jaaga bu baax wee nga xam ne tabarkaal la boo ca nàmpee joxe ngay xam teraanga ngay xam def lu baax ngay xam ak sell ak maandu waaw xam nga doon jeego dafay toog fan yi wax benn wax tey ma njaay ñëw di feddali wax boobu wala boog bëgg ko dooleel c'est-à-dire mel ni da dooleel jàmbur buy wax wala dooleel ay détracteur waale non doon jéego moom ndax doon jéego waale jox na ko oto xam nga tey jii ñoom ñëpp di xas waale te kenn ku ne am nga loo ñam ci waale nañ waxante dëgg mooy li ma lax léegi rek ku ci nekkul sa baay na ci mbaa sa maam ne ci mbaa sa nijaay na ci mbaa yow sa bopp nga ne ci mbaa nga ànd ak sa famille ne ci Don Diego Wally jox na ko oto fekk na Wally fu ne di ko biiju biiju kon tey jii bu taxawee di xas Wally fereke tani du ko saf ainsi eh, hein war loolu yëngalu kenn même Mandiaye sax yëngalu fi kenn dañuy yàq seeni salif di yàq seeni wax Wally tey lañ ko gën a bëgg te famille bépp ko bëgg ku ko fi bëgg a yàqit du dem kenn du ko fi nangu. li nga wax nii ma la ci mere. na ma mere bu ma meree mere ma ci dëgg gis nga nag ma wax la dëgg di jey mm-hmm. ak moo nekkoon waali génn wax lii ci ma mm-hmm. man bëgguma lu bon bëgguma kuy wax ci nit lu bon man waali gëj naa koo gis yàgg na mm-hmm. ba fosekaay bii lañ gisante waat man ak moom demuma këram ñëwul sama kër na ñoo gisee xanaa kon li may wax yàllaa tax ma di ko wax waaye démb yéen waaw mais garaawul amul problème comprendre nga li ma la bëgg a mm-hmm. mais damay wax te yàlla tax. Mandiaye xañ na nekk na ci ay jafe-jafe ba delluwaat mbuur mais àdduna ay o ñoo fi am ak i baa des fois day neex des fois mu naqari ku la ne waal des fois du am problème. ku leen des fois waal doo xëy am problème mu xaalis nit la di yorul machine bi di bi defar xaas bi. te taw bi tawul biir këram. day liggéey rek jaamu yàlla yi di ko teral muy am ay contrat am di liggéey nekk xale nag am jom ñaanul kenn taxawaalul fenn demul fenn mu ngi jàpp ñàmburam ku mu gis defe ne dalaa war a jox. lépp nag moo ko yóbbee boppam baax gi ëpp te ñun manjaay dinañ tooñaale ndax fi ne waali dinañ nag comme lu baax li may dafa tax nit ñi dama mere xaama tey sama loxo bu ko defee du lor ñi ci des ah alalu jàmbur ma ci mere kenn boo ma yéenee defal ma boo ma yéenewul téye sa alal ñu seq jàmm mais bu fekkee man damaa bëgg a jël sama carrière teg ko ci kaw nit loolu tamit mais nga nga takkaree bi ci suuf dem wut sa gi karal bu baax di jaay ndox mu sedd yaa wax loolu Mandiaye de. waxuma ko ko ñoom ñëpp laa wax Mandiaye dama ko mere ñoom ñëpp laa wax nañ bàyyi waali waali kenn jàppalewu ko lu dul jomam fitam ak ngorom ñoom it nañ xuus dem yàlla ji ñëpp la fi nekkal. coon mm-hmm. sekk yàlla na ko yàlla yéen moo ko daan yàlla yàlla boo ko dëkkee xor mu duy ko. nga dékk ko pat mu dee ko nga dékk ko paan mu dee loo ko dékk loolu la lay duyal boo ne sama wërsëg fii laa munuma doo mën mukk nit da am fit xuus yàlla moo bëgg ko am fit moo bëgg ku ñeme moo bëgg ko xuus moo bëgg ko koy laaj mais boo jàppee ni man kat mbaam ma rek yow rek laa war a toog di la xaar pour nga di ma jox. ah parce que nee na Faramareen musique waale kese moomu ko. Faramareen musique ko moom Faramareen musique. Ah. waaw moo ko moom lan la fa def lu mu fa yóbbu. Faramareen musique waalee ko moom waali moom moom na ni waali moomul Faramareen mais maanaam Faramareen Kajoor ak Bawal mhm. na ni Faramareen Kajoor ak Bawal waali moom ko ndax ci la bokk mais seen daaw mbaay seen sunu maam ñun ñëpp Faramareen Kajoor ak Bawal wayaa naale daa naale njiin borom belal loolu lépp ci tagg gi la bokk loolu moom waali moomu ko man moom ma ko keneen moom ko ñun ñun ñëpp ko moom ñu ci nàmp ci soow mi ak ñu ci dugg ñi ci juddu ci géño ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye nag Faramareen musique boobu moom bàyyi ndeel ak ko moom ba boobu ba mu koy def ku ko ci jàppale ku fa indi fil mbaa rajo mbaa micro mbaa tapis wala ndox mu sedd kan moo ko defal boppam te fitam ak jomam ak ko may barke Seydina Mohamed ba ma waale sekk di wax dinaa téye musique bi dama ko doon xool sax di rey affaire bi gëm-gëm la nag ku ne gëm sa bopp gëm yàlla. waaw mais coow li tamit est lu ko déclenché du fan yi balaa ko Seck li mu def geste bi mu def génne oto may ko ki nga xamante ne bii mooy caat Seck est que lu tamit loolu la ma njaay di naqaru. waaye ñu may la ñaari oto caat Seck kat bu ko ma Wally mayee oto war na caat Seck soirée Wally mu dem. bu wayee ba mu nekk muy jooy boo tuddee waali caat sekk fàtte ni waykat la dalay tontu day xuloog yow toog def interview bi ñu àndandoowee ñoom ñëpp dem euh, fële stade ba naan ñun ñëpp bi waali njaabee ñun ñëpp danoo mel ni ay suq waali moo doon star bi naan aka jantal aka nàngam waaye yow waxal ko lu baax lu ne kooku bu ko waali mayee oto moo ko mérité te caat dafa baax man caat sama xarit la man caat ma xool 2006 2006 laa jëndal caat sekk portable boobu siiwul comme nii 2006 boobu portable yi bariwul boobu temps ku yor portable <laughs> dañ lay xoolaat mais caat sekk démb bi may xamoon téléphone démb caat sekk ngi tudd téléphone bi nit gënul ta goree caat sekk nit gënu koo reconnaissant oto bii ko waali may nii fii ba deux mille cinq cent soixante quinze caat da koy tudd mën naa am téeméeri oto yu gën bi ko waali may ci kawam mais foo waxee day tudd oto boobu caat noonu la ko yàlla bind mais loolu nag mooy askor alalu jàmbur loo ca am rek sante ko yàlla alal sax ci xolu borom waaye lépp moom la ku mu làngal joxe nga départ bàyyi ko fa bu mayee caat seeg oto ku ci xanaa kon man ma mer non <laughs> non man Waly mosuma ko wax dama bëgg oto mosuma ko wax ma ko ko waxee oto am problème. ko wax rek. duma ko ko wax Waly li ko war ci man xam na ko te mi ngi ci duma ko dara non. a man xam nga li may toog Sénégal bariwul. ndax <laughs> yàgg yàgg moom la woon ca Italie. barki Serigne Serigne Touba bu ma yëgoon lu ma doon def ak moom. booba noonu la ma ko yokk. doo wax mu jëndal oto rek nga attaqué ko fii Feeling Dakar. du ma ko attaqué non du ma ko attaqué man bëgguma oto man bëgguma sa oto boo ma ko mayee sax duma ko jël bëgguma oto moo bëgguma ma jëndal oto moom Seck waaw. mbaa du njëkkante ku nekk la njëkkante. man moom Seck dama may oto waali du ma may oto bëgguma oto am sax billaay. bilaay walaay gëm naa waal njëkkante ak euh, euh, moomi sekk ngi jëndal looto waal du def lool du ko def du ko def non da nga da nga da gore nag danga bëgg lool Wally Ballago Seck ndeysaan mosoo bëgg kenn euh, laal ko mosoo bëgg kenn koo xamante ne bi vraiment attaque na ko alors tey daal sa mot de la fin ci waxtaan bi daba lan lay doon ci famille bi nga xamante ne bi wax dëgg yàlla yéen ñëpp yéen a ko bokk sama mot de la fin mooy nan nañ leen noppi famille fi bari na kenn déggu leen nañu roy ci mag ñi nañu roy ci Kéba Seck ak Mapenda nañu roy ci Assane Ndiaye ak Ousmane ñu ngi ni patt kenn déggu kon ñoom it nañ def noonu te bàyyi jàmbur bi ñuy attake walla defu leen dara nañ bàyyi waali ni ñuy attaqué ku ci am li nga bëgg a am nga liggéeyal ko sa bopp yàlla jàppale la man d'accorduma di yàq nit nit boo xam ne rek danga ko xam ni depuis rawatina sa mbokk suba teel ak xaaju guddi laa ci yemale bu leen neexee nan dem xaaju guddi magum na dem suba teel yàlla na leen fa yàlla defal ndam luñ fay wut yàlla nañ ko fa gis lu ko ëpp dem di bañu ma ko xamal tax bañu ma ko Cheikh Mbacke responsable la am na lu ko war dafa yor yaayam mooy taawu yaayam Mandiaye yaayam moom rek la am ci góor ñaari raq la. Cheikh Mbacke ma kan bambaal. yi mhm. mooy mag moom mooy taawu Mapend ak Rama Ndiaye mhm. comprendre nga mhm. ma Mandiaye ndey soxna daf ko yaakaar. te ñoom comme way lañ opté am nañ droit dem waxuma suba teel ñu dem xaaju guddi wala fajar teel maanu dem tàkkusaan fuñ ci dem rek baax na. Cheikh dem na muy attaqué. Mba Cheikh Mbacke du attaqué Cheikh Mbacke il est trop digne mhm. dafa am personnalité. dafa bëri tiitar am lu muy incarné. Mhm. ma njaay miit yar laa xamoon ci moom ak kersa mais mën nga mën na dëgg liggéey jaamur tamit mën naa am tay ko amee ah, loolu laa xamoon ci moom nan dem fu leen neex fu ñu yaakaar ne bu ñu fa demee mën a am lu ñu yóbbu seen kër diñ maan nañ fa dem mais bu ñu tooñ kenn bu ñu tooñ kenn man loolu kese laa leen laa meree ma njaay bu bëggee dem suba teel na dem bu bëggee dem xaaju guddi na dem bu bëggee dem fajar teel na dem fu ko ci neex na dem mais damay dem ak sama dignité su ma attaqué kenn surtout ko ngay attaqué koo xam ne féete na la fu ne loolu kase laa ko meree mais kenn ku nekk lii bëri nga dem fu la neex parce que nag ku ne am nga droit dem uti ji yóbbu sa kër man loolu man merew ma leen ci ba coow li baree ñu ciy waxtaan en famille ni leen am nañ ci droit fu dem fu leen neex ñoom am seen bopp Mandiaye moo demoon Sobatel moo fu jógewaat ñëw ci waali moo dellu suba teel mooy bii mooy deuxième fois muy dem suba teel yàlla na suba doon ci moom xaaju guddi lépp dox ci barke Seydina Muhammad ndax man moom ñëpp jàmm laa leen yéene mais nag bu ñu tooñ kenn te kenn du tooñ nit ku baax te wala nit ku baax la. te ma Ndiaye nag d'abord vraiment moo daan defendre Wally nee na ko heure bu ñu la ma mos a génn naa défendre la. moo tax moom est-ce dafa dafa bëgg Wally génn défendre ko. mu koy défendre dañ koo tooñ. buñ ko tooñoon léegi man ma génn défendre ko bu nu génn bu nu tooñoon ma Ndiaye ma génn défendre ma Ndiaye mais man damaa déggul fenn fu mu ko tooñee wax na li mu ko defal fan. maanaam lu mu ko lu mu a génn rek génn na défendre ko fu ko laalee rek. d'accord mais moom wax na tamit fi waali jaar moom ba loola man maa la ko wax mooy limal limal ni ku la jox ay oto joxati la ay oto. ubbil la buntu këram heure bu la neexee dugg heure bu la neexee génn soirée saa yoo bëggee dugg saa yoo bëggee génn bu la bu la bu la duyelu say poos ba mu fees fi nga taxaw boo demee sa kase fekk la fa. mais nag waal dafa jékki-jékki tëj buntu kër ga waaw dina ko tëj parce que waal na ko gën a tëj man maa ko conseillé lool buntu kër gi na ko gën a tëj ndax bu fekkente ni boo ñëwee sama kër ma ubbil la nga dugg soo ñëwee ma ubbil la nga dugg suba nga ñëw fekk buntu kër gi tëj nga woo site internet yi amoo fayam te macha allah gis naa sénégalais yi nuñ ma jàppee niñ ma fonkee su ma defee sama interview damay gis niñ may apprécier ak yu baax yiñ may wax macha allah. waaw musuma vraiment ren ñëpp laay nuyu. ak àdduna bi ñëpp laay nuyu parce que su ma defee sama interview damay gis niñ may apprécier yu baax yiñ may waxal. di ma encourager kon man sénégalais yi awma seen fay. dama leen di ñaanal yàlla képp koo xam ne yaa ngi ci jafe-jafe suñu borom génnee la ci képp koo xam ne yaa ngi ci bànneex yàlla na yokk. ku ci feebar yàlla may la jàmm ah, jàmm am waaw ci monde bépp di ñaanal manjaay yàlla may ko jàmm nag parce que lii nii xam naa dafa laal garabu jàmbur yàlla na ko yàlla indiwaat ci xelam indiwaatal ma manjaay bi ma xamoon ci kersa gi ci yar bi ci sutura gi ak ci bëgg gi mu bëggoon magam yàlla na ko yàlla delloo si waaw te xam naa ci waal yi loo xam ne baal na leen ñoom ñëpp bu ñëwaatee nu uufaat leen xam naa li ma la wax barke Cheikhul Khadim non xaar nga lool. bu gisante woon ak dina ko ko xaalis may ko oto noonu la mel noonu la ko yàlla bindee baaxkat la oto nañ ko bàyyi nañ mhm. ko bàyyi. kersaayam kersaayam rek kersaayam rek. loolu la ñuy xaar sax ñu naa ah, en tant que euh, nit ku baax yow aussi vraiment en tant que ku bokk yàlla na ko yàlla defaat yàlla na ko yàlla defaat yàlla na ko yàlla defaat ndax Waly sekk mu ngi kuy ànd ak ay jàmbur. doo bàyyi say mbokk te Waly bàyyiwul benn mbokkam ku mu gisul nag gisul mais ku mu gis dina la teral ku mu gis dina la dimbali ku mu gis dina la jàppale te ñun loolu lañ bëgg di nii yàlla jeexal ko. ñu retrouver waat parce que tamit lii moom du affaire moom lii moom du yaram mi ngi daw ci interview bi fu naa naan foofu laa koy jeexale ndeysaan ndax itam euh, mu ngi nii sama waa ji ñaari baat sax bu ko waxee day jooy <laughs> alors jërëjëfati Ali moo nekkoon ci cadrage bi ñu koy gërëm di nuyu ñëpp rawatina waa Faramaren diaspora ñoom ñu ngi Suède ñu ngi gërëm aussi diaspora femme faramaaren yi nekk ci àdduna bi un peu partout ñu ngi leen di euh, nuyu ah princesse lan mooy doon kàddu gu mujj gi tàggatoo bi. tàggatoo bi mooy damay nuyu moom Seck sama sang boobu Maria Sin may si biige may si biige maar ajub naar mi ci ndóob njarka dem mi ci làmbaay njiin faramaaren chéri Bougane Gueye Dany jéeg bi ci kaw sponsorisé par son mari Gueye maam góor aram ma des ñoom de ca baa nga septième gaar jéeg bu riis bu yaru koo xam ne bu wax ci baree du moom bu jëf ci réyee mooma mais seen daaw mbaay gara daaw mbaay sama sang sama xarit di nuyu Faat Bintu sekk mi ñu dénk Cheikh Mbengue sama sang boobu hmm. moom tam di ko ñaanal jàmm ak xéewal ak sutura waaw lépp rek jaaga la parce que moom moo moom moo ma xital ci njabootam moom moo ma booleeg njabootam moo ma yàqalu dara ci njabootam waaye it noonu laay nuyoo Faat ba Seck bu ma Penda Seck hmm. ak jekk tànk sekk bu ma penda sekk hmm? di nuyu tamit raq ma Ndiaye maam Lissa bu Ousmane Seck ah maa ngi nuyu ma Ndiaye sama chéri la mais demandé naa la divorce à parti partir d'aujourd'hui fase naa la ndax dama la mere noonu laay nuyu aussi Bambali Seck bu ma penda Seck di nuyu ñoom chérif sama jëkkër yooyu maa ngi nuyu ñëpp ngir yàllaa ak yonent bi rek li ma leen di ñaan mooy dama leen koy ñaan ngir jëmmi Seydina Mohamed bu kenn génn ci ci site yi wala ci tele yi ba ñu laaj la ci waal yi nga wax ci moom lu ñaaw ndax mérité wul loolu man loolu kese laa leen di ñaan fu ngeen toogati ci télé bi fu leen euh, lu leen mën a laaj tontu leen mais bu ñu duggeek yéen ci waali rek bu ngeen mun wax lu rafet bàyyi leen mu sedd mais bu leen wax lu ñaaw maa ngi leen koy ñaan ci barke Seydina Mohamed <laughs> lan nga bëgg. <laughs> Ali sa diggante Ali kii jooy. jooy waay. lu ñaaw. dama di dama walla yaa ngi jooy euh, alors foofu la ñuy dagg interview bi ah <laughs> euh, donc di ko di ko di ko di ko di ko masawu ndeysaan moom itam sunu xarit la boo xamante ne bi xol bay rafet man xamoon naa ne ndeysaan bëggul wax sax ci famille bëggul tam ku ci wax dara lu ñaaw donc ñoom noonu lañu mel toute la famille Faramareen ñu ngi leen di gërëm mbokk internet du Feeling Dakar Ali moo nekkoon ci cadrage bi